yéen a ngi seetaan GM Info TV. à travers daan bi ñu indil nii mu nekk benn plaisir comme bi Sénégal di indi coupe d'Afrique bi maanaam mu fédère mu mu mu mu bu xolu nit ñi ñëpp dabandoo ñëpp bëggandoo maanaam coupe bi loolu la def ci Colobane Gouye Mouride képp ku mu neexul da nga naa wala yow sa xol rafetul. parce que li may wax du ASC Juboo la ñuy dégg mais dañuy dégg ASC Juboo de Guy Mouride te ñun Guy Mouride dañuy am fierté lu waay di njëkkoo njëkkante wala di taxaw ñu wan leen ni ñoo leen ci mën donc bu fekkee ne ni ASC Juboo daf ñu indil ko jàpp nañ ne ni si jàppee déwén ASC leen nekk lay doon ak ASC Juboo ànd ak ASC Jamono ànd ak Olympique Daaru on souhaite que cinq coupes taxaw au nom du collectif ñu nañ leen def nañ leen xool nan la ñuy féetee cinq coupe yi balaa ñuy dem ci phase départementale. alors bu fekkee ne ni yàlla euh, euh, dafa def loolu du ñu def lu dul remercier leen par rapport ak xalaat bi defe naa waa ASC jamono laa see ñuy dugg si noonu waaw ñu ñu ñu tàmbali leen Jubo kan mooy seen président président wu ASC Jubo seen supporters yi kan la Ablaye waaw ñu tàcc ko bu baax euh, merci euh, li may wax dafa am solo dama bëgg ñëpp teewlu ko ñun dañu dem stade ñun dañu dem stade ñu nekk loge officielle si loge officielle bi waa Colobane ñoo nekkoon à nos à notre droite waa nekk à notre gauche. alors bi ñu ñëwee balaay match bi di commencer je dis bien parce que nit sax di ko gagné ñu ne moo tax muy def lii parce que xelam dal na mais balaay match bi di commencer la waa Colobane tàmbali di jël ay mbuus ak lu ne. yëngal barrière yeeg indil ñu problème ñun ñi nekkoon loge officielle mais suñu réaction moo doon ñu xool waajuboo lan la ñuy def mais waajuboo xooluñu waa Colobane fay wuñu ci loolu te yëngatuñu xoolu ñëpp dem stade seetaan match bi avec intérêt gars yi di xaaja ka xuloo yow répondre ci loolu parce que ñun si loolu lañ leen di woo non à la violence donc loolu moo tax man maa jël décision wu may leen cent mille francs ñoom ñu continuer seen kii maa leen di may cent mille francs yoo xam ne jaaru décoration la ci ñoom si seen comportement bi ñu am yeneen supporters yu am comportement yooyu dinañ leen defal ko mel nii pour encourager leen wan leen ni jàmm lañu loolu c'est juste un accompagnement par rapport ak ñii li ñuy def pour wax xale yi nii bu ngeen nekkee ci fitna du ngeen ñu ci gis loolu buñ ci naxante mais tant que ngi ci jàmm lépp lu ngeen bëgg ñun ñu ngi ci te da ngeen ci am ndam en tout di encouragé ASC yi fi teew xaw naa guddal maa ngi jégalu mais surtout ñu leen di dem ci ñu ngi jégalu thank you a ngi seetaan TV